Mouhamadou Abdoulahi la tudd baayam tudd Abdoulahi Serif ndeyam di Aminatu Zahra mu ganee jamono penku di Serif ñu jàpp ko jàmm indi senegal mu dund juróom benn fukki at ak ñett di dunduk yonent bi ay doom yu jigéen rek la fi bàyyi ni yonent bi te mag ñi mu daan àndal ay saxaaba lañ leen di woowee ku dégg lii bu nee la may max Mahdi nga war ko gëm daana wax nag naan wolof daa yàq baat na ñaar xam na ndax ñett xam sëñ Bamba xam na Cheikh Ibra xam na man Abdoulahi yaqin xam naa